ko yàlla yërëm. yàlla na ko yàlla yërëm yàlla na ko yàlla yërëm moom daan woowee en 2001 elle me surnommait Papi Poncho. Papy Poncho bi woon ci série Marimar <laughs> Marimar <laughs> mooy lu lu ah, ah, ah. ah. yàlla na yàlla suuf sedd ci kawam kenn du moom ñu daal di dugg ci suñu information nañ la daal ñun Baye Assane moo ñu neex daji ñu nañ la ne daji sekk gis nga euh, ñu daal di koy door rek ak li nga xam se ne moom mooy wàllum ndox gi lu ñëpp di daal di jooy mu di seen eau le calvaire des Sénégalais pour le liquide précieux mm-hmm. et c'est un liquide très précieux mm-hmm. et fiasco de l'État pourquoi ah, lu ci état def ba nga ne fiasco. ah état moo signé contrat moom moo moom moo. sëñ mhm. Mbaye Thiam kilifa boobu laata moom. Mansour mhm. Faye. Mhm. beneen kilifa boobu ñu ngi leen di jaar bu baax. Euh, ils ont eu la malchance d'être tombés sur ça euh, d'avoir été les gérants de ces de ce dossier là jëlee mbir mi ci SDE jox ko CNO CNO bokk ci groupe bu ñoo wax Suez. di groupe français. Euh, sunu sunu sunu lépp jox nañ ko France lépp. Mhm. loo xam ne amul woon sax au temps de Diouf président abu Diouf même Senghor au temps de Senghor loolu amul woon. le président Macky Sall mooy président bi jël lépp jox France loolu loolu je pense que ñi ànd ak moom munuñu ko bañ c'est de visu. Mhm. Euh, maa ngay gis waa FH ñu ngi ci croisement Cambérène bi di di préparer bu ma juumul. Euh, defe naa toboggan lay doon wala pont je sais pas pour foofu nga xam ne fa la oto yi bu duggee ci péage bi fa ñuy wàcc loolu nga xam ne kenn xamul ban xalaat la ci àdduna ñoom ñoo ko tey defee ko noonu parce que dañu soxla woon seen gafa ko demander à Eiffage combien depuis autoroute à péage bi tàmbali ils ont gagné ci alal combien dañu ne woon c'est un contrat pour 30 ans signature au temps de Wade mais ma fàttali Sénégalais yi ñii déglu ci ñi ñu ko sañ a wax Eiffage est un dossier qui a été géré par le premier ministre d'alors il s'appelait le président aujourd'hui Macky Sall donc euh, nañuy bàyyi naan non nañuy bàyyi naan woy Ablaye Wade moo signé nangam nangam oui il a signé ak d'accord c'était le président de la République mais le président de la République qui avait tant confiance en des gens dont un PM qui s'appelait Macky donc loolu ñu leeral ko Eiffage je me rappelle fii ci Padoa bi bi ñuy def lancement. Mm-hmm. Euh, travaux yi. Mm-hmm. Aminata Niang avec Aminata le discours de madame Niang Aminata. Mm-hmm. il le discours du premier ministre d'alors. Macky Sall il s'appelait il s'appelait moom moo remplacé Idriss Seck en 2004. aussitôt après le remplacement les chantiers ont démarré dëkk bi yëpp ne woy Macky dafa ñëw rek affaire yi démarré oui mais comment et avec qui et pourquoi. c'est pas pour soi-disant këpp ci kaan yi baax na mais gënoon na. bi mu ñëwee nag falu la chose s'est confortée ou confirmée mooy que tey Sénégal sunu lépp lépp lépp loolu amatul ci benn dëkk sous région fii rek la am ñu jox lépp nasaraan ba ci ndox mi dugg sunu biir. Mm-hmm. maam Sidi maam Sidi dafa am benn video boo xam ni defe naa bu dee jege na la nga tegal ma ko rek ma am lu ma junj tuuti rek ngir yàlla bu dee jege na la tegal ñu ko rek may ñu ko ñu am tuuti rek lu mu waxtaan. ak bokk yi parce que dafa nekk loo xam ni dafa dafa am solo waaw nañ ko déglu Imaginez à quel point j'ai été surpris de voir que, alors que la Haute Autorité de Santé nous a expliqué dès le 8 août, hein, je vous rappelle, que les vaccins Astra n'étaient pas suffisamment efficaces et que la DGS interdit finalement aux médecins de d'utiliser ces vaccins pour nos euh, concitoyens, eh bien, ça n'empêche pas la France de généreusement envoyer ces doses d'Astra, totalement inutilisables chez nous, dans les pays africains qui en, en auraient besoin. Comment qualifier cette fausse générosité envers les pays africains Personnellement, je trouve que c'est honteux pour le pays des droits de l'homme de s'enorgueillir d'envoyer des vaccins dans des pays qui n'ont pas les moyens de les acheter, alors qu'elle-même ne les recommande pas pour ses propres concitoyens. C'est-à-dire que ces vaccins ne sont pas bons pour nous, mais ils seraient suffisamment bons pour eux. N'y aurait-il pas là un relent un peu nauséabond de colonialisme méprisant, de suffisance des pays industrialisés envers des pays dits en voie de développement, qui pourtant ont beaucoup mieux géré la crise sanitaire que nous jusqu'à présent. Si vous regardez les chiffres de mortalité, ils n'ont pas de vaccin, mais ils se sont plutôt beaucoup mieux pour certains à l'ivermectine, pour d'autres à, euh, à l'armoise, la, euh, Artemisia donc. lu mu ne mu wax. Mhm. ab nasaraan la. da mm. doon waxtaan ñoom seen biir ak seen biir bu ñuy waxtaan seen waxtaan yooyu te jamonoy internet la ñu nekk donc affaire yi day génn. Mm. dégg nga mu wax. Mm. mooy AstraZeneca. waaw bi ñu wax semaine bii sax di baamu ne am na yuy ñëw soi ne nit ñi dem leen ngeen ñàqu ji parce que mooy seule solution et cetera jàngkat yi nekk fii yéen ñi ngeen yéen yéen am xam-xam dégg nga li nasaraan bi wax nee na comment se fait-il que ñoom en France seen direction de la santé bi amee mbir mi ne leen bu kenn laalati lii interdire ko foofu mais ñu jël dose yooyu yëpp au lieu ñu tuuri ko yàq ñu jël ko may ko pays africain yi ñoom ñu sunu kilifa yi autorités yi jàngkat yi borom xam-xam taxaw naan ñu wéy il faut que xam nga loolu mu tudd. Hmm. haute trahison ki nga xam ne nag mu ngi lay def loolu li tax ma bëggoon vidéo bi ki lay def loolu nga ne yow moom ngay jox sa ndox mi ngay naan sa askan. Eh. ne gars yi nañu waxtaan ci xel. Mhm. ki lay def loolu kii jël vaccin yu bon ne dëkkam duñu ko fa consommer jox la ko yow Modou ci am sa kër nga yóbbu sa jabar mooy ñëw tey ne la jox ma sa ndox ma gérer la ko mhm. ndox mooy première premier levier de souveraineté ci dëkk. mun nga ma may virgule ci li nga rek. <laughs> vas euh, ma emprunté euh, dafa am kilifa. boo xam ne maa ngi koy nuyu Baye Moussa Diané di mag bu fekkee démb ci li ngay wax nii mu ne ma bu njëkk pharmacie yi amoon Sénégal pendant que les colons étaient là la woon ak Dakar gi toog nañ trois ans. Hmm. ñu benn comprimé. mujj gi ñoom seen bopp ñu ne waa mais dëkk bii. pourquoi xanaa nit ñi duñu feebar laaj ko chef de canton yi xam lan leen tontu mu ne mu ne ñii li ñuy li ñuy dundee ak li ñuy fejoo lépp ñoo koy bay gars yi ne ah kon nag yoon waa ngi noonu pour jox leen feebar ba pare fej leen. mu ñu indi ceeb. yoon waa ngi noonu. maanaam maanaam suñu produit phytosanitaire yi yàq sa mbay def ci ay ay ay engrais yoo xam ne ni waroo ko ki après nga feebar. ñoom ñu fej la. ñu ñu jaay la pharmacie. c'est un pyromane c'est un pyromane ah, léegi léegi ñoo laaj ñoo laaj ñun bëree wax ñu naan dañoo bëree wax dañoo nangam nangam ñuy laaj suñu borom xam-xam yi nekk fi jàngkat ya mag yi am na sax loo xam ne faw ñu wax ko en passant moo la mhm. dañuy dégg parce que nous on est nostalgique de l'ancienne RTS office ORTS nga xam dañ daan gis suñu bàyyi Maguette Wade ñu ngi kasiyaar papa ñu ngi lay nuyu parce que daf ñuy seetaan yàlla na yàlla wéral ko allahumma amiin di gis ñoom saada kan mm. ma bàyyi ma xarit ñu ngi ak kilifa ya mel noonu ak ñoom Mamadou Malaye Diop laay lay lay ngi kasiyaar bu baax ak ñu sa des ñu bari ñu nekkoon RTS Elisabeth Ndiaye suñu yaay bu baax bi yaayu Pape Malick mm-hmm. ñooñu bu leen di xool dañu naan ñun ah Mignel Barro mm. la sëy journaliste <laughs> Jacqueline Fatima Bokoum autant. Mhm. mais mën na di Umar Dia Jaaju Touré. Jaaju Touré mhm. Biraye. kii mhm. Jacques Sow amiin amiin quand on voit tous ces gens là xam nga lu ñuy wax dañu am benn benn nostalgie benn chaleur humaine ak benn ce semblant d'avoir vécu quelque chose de fort. mais il y a quelque chose qui qui qui gêne un peu dans ça. voilà c'est quoi. mooy que information ba ñu daan jox dans la forme ñi ñu ko daan jox ay professionnels lañu. ya mag ya ngande ay légendes du journalisme mais dans le fond il n'était pas libre. Mm-hmm. dañ leen doon orchestré diligenté leen fenn fan la info bi jëm. conformisme. conformisme loolu nag mooy li changé en deux mille vingt et mooy alpha ou bêta mm-hmm. dina am benn journaliste bu yóbboo ngeen jàpp ñëpp sonal ñëpp mais dina am benn boo xam ni moom xam lu muy wax. danaan andoon give nangam nangam wala mu ne fregew ma ñente ni italien yi di wax ak la sa des mm. Mm. moo la tey Sénégal dafa toll ci liberté mm-hmm. waaye liberté mën mm-hmm. ko mooy ngi tàmbali ci ndox ndox bi mm. dëgg la ndox normalement waruñu ko ñaata ngay fay facture cher man de sama bos man de sama bos daa doublé ay cinq maa ngi dem dem naa ba fu mu toll nii si presque juróomi junni. léegi te day bizarre lu musul am. te day ànd ak coupure kër yëpp courant. bon de coupure da ngay toog non non am. oui oui oui coupure mooy doo ko consommer de de 60 na ma fi fay ñetti téeméeri sax du mat. waaw mu indil ma juróom ñetti junni ak lu teg. waaw xam naa ne internet ñu ngi rey seen bopp. non non am na ci ay seen oh, la. waaw su ma ko jaaralee léegi comment se fait-il que mhm. Sénégal ne SDE am na problème ñu dund fi ay jafe-jafe ak SDE mais il faut se poser la question lu tax ñu amoon jafe-jafe yooyu ak SDE. Mhm. on a mii les conditions pour que SDE am jafe-jafe. comme ni ngi daan toogee en deux 2010 2011 ñu ne ñu dafa am kilifa ba nga xam ne moo mooy moo Clédor Sène ko fu wax Samuel Sarr sax la tudd. on le dira parce que c'est entre guillemets selon les dires de Clédor en tout cas il l'a dit il l'a incriminé et je pense que peut-être monsieur Sarr euh, Samuel suñu kilifa bu baax boobu euh, tonton ñu ngi laaj baax di la nuyu je pense que doon baax mu leeral lu ni mel peut-être s'il juge que aussi c'est pas nécessaire d'en parler mais en tout cas accusation grave la mooy que en les émeutes de l'électricité bi daan am fii ba suñu bàyyi ba lay nekkoon géejawaay imam Sarr ka mm-hmm. baax ka xeex pour askan wi déggatuma ko nag xam naa dafa jàpp damay wax ne damay wax ne dafa jàpp certainement parce que am aussi dafay jëm mag donc yi moom noonu du ko mën a mais damay damay damay ex ñi mu daan àndal peut laa gistu mais damay wax ne mhm. ñooñu foog ñu génnaat parce que dimbali ñu parce que seen o madame Touré ci madame Touré Fama Ba li ci nekk mooy que mooy bi deuxième fois baa ni ma si juum. dëgg la <laughs> amiin damay bañ nag sama waa ji ngi ne amiin a a raison ma leen jox Touré ki fekk sant Touré. xëy na doom Touré la sant loolu lépp dara xamoo ko ci. ah Paasan kii nee na la jaww ji di Paasan fii mu 2 heures du matin ba 6 heures du matin la ñuy am ndox. te loolu man benn tali. plus de dix ans xaw guddi ba guddi la ñuy am ndox am na côté yoo xam du sa am ndox. voilà léegi léegi li ma bëgg expliquer li ma bëgg expliquer. pour mhm. confirmer ce qu'elle dit. mooy que dafa amoon lu ñu doon wax les émeutes de l'électricité. Mhm. Sénégal yëpp di xuloo ko xeex ndax courant buy coupé ba ñu toj Senelec Castor ba bu dee am ngeen fàttali. waaw mhm. waaw léegi lu ko waraloon. parce que de dem coupé tout le temps nit ñi am problème. mais les révélations de Clédor nous font comprendre que non c'est parce que jamono boobu. pétrole bi ak fuel bi je sais pas quoi euh, li doon utiliser pour courant bi dañ doon bloquer bateau yi ci géej gi. daal di ci tudd Samuel Sarr en passant pour wax comment ça se passe. Mhm. on a entendu waa UNACOIS ci jamono ñenn ci ñoom en tout cas xam na ne jamono boobu. ci xeex Ablaye Wade ñoom ils avaient mené certaines choses yoo xam ni c'était en défaveur du régime certainement peut-être régime bi dina ko dund ou pas on ne sait pas mais. qui a orchestré ça ci contexte boobu ba ñun ñëpp ñu ànd mere la Wade ci jamono boobu qui est en train d'orchestrer ou qui a orchestré pour que SDE ñu défenestré ko daal di fi indi ay tubaab. c'est le nouveau président de la République jox leen que Bertrand Camus bi jiite fële depuis 2019 groupe Suez. Mhm. tëdd moom di gundaandaat ñuy jox France ndox bu baax te ñoom sax daanaka du ñoom ñooy gérer ndox ab France donc ñun ñoo la ñan ñi nga xam ne amuñu valeur. mais ñun la ñuy jox vaccin mais ñun la ñuy jox vaccin yu baaxul. oui ñun la jàppee ay nit yu tekkiwul dara baal leen ñu wax bi. c'est-à-dire que nous laissons trop et des gens un groupuscule de personnes nu dilapitent nii di jàkkaarloog ñun dañu ko def di dem. Eh, pressé suñu yaram nangu na ko. pressé suñu yaram ak seen bës bokkul ñoom seen bës xëy na ko ñun suñu yaram nangu na vaccin yooyu moo tax ñu indi ko fi. et et et y a une chose au-delà soxna. c'est pas le danger d'après ce qu'il a dit yooyu ñoom nasaraan yi dañ ne woon au départ duñ ko jox. lu dul ñi am cinquante cinq jëm kaw. Mm-hmm. mooy ndaw yi bokkuñu ci parce que c'est risqué. Mm-hmm. waaw léegi nga ñëw jox ñu ko ñun. ba pare ñun suñu nguur yi fii commencé di dem ci benn saa bi di gëmloo nit ñi yenn yi. il faut qu'on que ñu def attention. mais actuellement également xam leen ne seen 18 ans yi fu mu xale yi ñu ngi leen di wax pour ñu vacciner ju parce que lañ ñu yéene woon Afrique gi moo këpp seen kaw. il faut xam loolu. gis nga nit ne ne Covid bi dina ko def africain yi moo këpp seen kaw. actuellement seen ndaw yi ñu ngi ci ay quatrième vague par six mois dem pour ñu dem defi ji ay vaccin est que loolu gis nga ko fii ci Afrique. et a une chose kii euh, femme Fatima. Mhm. y a une chose mu tëjee foofu ci wàllu ndox mi. Mhm. mooy que Emmanuel Macron ci discours am yi jëkk dafa ni le problème de l'Afrique c'est la démographie daf leen baax le problème de la man nga ma xamul sax lu ci yoonam moom mais problème la ko de l'Afrique c'est la démographie c'est la démographie léegi ci biir démographie boobu moom jàpp nañu parce que il faut que yi sénégalais yi comprendre ne que population buy accroître xéwal la dañ ñuy gëmloo jàngkat yi moo tax dama am problème tuuti nañ ma baal kilifa yi am xam-xam di ñu setaan tuuti nañu lool ci wax ak een mhm. mais jiital leen lii askan bi bàyyi leen récitation bi c'est-à-dire que les le système socio-scolaire bi nekk Sénégal mhm. éducatif oui tari la mhm. pour réussir du tari pour am xam-xam ma tëj fenn mooy que ndox mi ñuy jox Sénégal maa ko fii baaxul ndox mi baaxul. baaxul danger la. te Macron dafa ne woon ñun suñu population ni ñuy yokkoo nii baaxul.